ci wàll gi nga xam ne moom la ma yàlla natoo ma fare fi muy ci taalibeb Serigne Touba ñu yëkkati ma teg ma ci bopp commune bi ma tënk ma liggéey bi ma ànd ko ak taalibeb Serigne Touba yi li ci sama warugar te nga xam bi ñu xalaatee xalaat bii ñu woote mbooleem ñoo xam ne xam nañ ni dëkk bi am nañ jafe-jafe ñi ngi dund ci jafe-jafe ci assainissement te ñëpp ñi ngi ciy def li nga mën état Sénégal mi ci di def li mën lépp commune bi mi ngi ci di def li man lépp association yi ci koñ yi ñu ngi ci li man di def lépp waaye loolu assainissement dafa nekk mbir mu diis moo xam ne munul xëy sotti bi ñu dajee waxtaan ma woo ak autorité yi muy gouverneur préfet sous-préfet woo association yi fi nekk yëpp woo service technique yi fi nekk yëpp woo waa Touba ci kanam ak association yi nekk ci gox ak goxaat yi ak euh, waa wilaya ñëpp laa bay wu woon benn secteur ne dañoo ba damaa bëgg ñu def ref journée de réflexion boo xam ne dañuy xool jafe-jafe yi nit ñiy dund ci dëkkam Sëñ Tuubaa bi nan la ñuy def ba def ci liñ man ne do saafara moom yombul waaye nit saañ naa am yéene am pas-pas tey jéem ba sun borom dogal ko loolu moo tax bi ma leen bi ñu toogee waxtaan ak autorité yi ak waa membre de état yëpp ak service technique yi waa Touba ca kanam ñoom ñu ñëw ci ak acte bu am solo boo xam ne ni ko sëñ Abdou Fatah waxee mbooloo mu daje te am pas-pas te am ne tey dox lu nekk fu nekk mën nañ faa àgg ndax li mu wax nii ñu ko tàmbalee dañ ko tàmbalee yow nëga mu jëm ba abadan ndax feek addinaa ngi dox yoonu murit di dox tuubaa di dox liggéeyal sëñ Touba di wéy hmm. kon noonu ma ñu firndeel ko ñu daje waxtaan ci ñu tënk li ñuy tënk nan lañ ciy jubloo ñoom ñu dem réfléchir ba trouver solution bii nga xam ne ñoom ci seen xereñ ci seen ak njàmbaar ci seen ci yëg-yëgu sëñ nga xam ne li ni ñu ko tuddee Tuubaa ca kanam taalibe seen Tuubaa yépp a ngi ci ñu laase ko murid yi répondre ci nii taalibe sëñ Tuubaa yi répondre ci nii li ñu ci kañ ànd ko ñun la ma leen waxoon ci tàmbali ba rek maa ngi yéen Tuubaa ca kanam moom liggéeyal sëñ Tuubaa la te kenn du ci man fu ñu toll ku fasiwu ma yéene ku yàlla bind man ma ci liggéeyam sëñ Tuubaa loolu moom maa ngi ñaan suñu borom nekk ca jàmbaar yi ci kanam loolu nag ñu ànd ko moo tax bi ñu jogee ñëw Abdou Lahad Ka en tant que taalibe Sëriñ Tuubaa bi ñu waxtaanee ma ne leen danaa ci def sama ñaq danaa ci def sama alal danaa ci def sama xel danaa ci def li ma am lépp ci logistique loolu moo tax bi ñu ñëwee en tant que ma jël 5 millions yoo xam ne maa ko def addiyee Sëriñ Tuubaa du acte bii nag moo njëkk ci moom dama fas yéene acte bu lu ñu yëkkati rek Abdou Lahat ci biir lu ñu yëkkati fuñ toll ma toll fa ak ñoom feeg maa ngi koy man loolu may ma ma yëkkati loolu def ko yëkkati sama logistique yu entreprise boole leen ak moom ne leen fu ngeen toll ñu toll fa doora nag ñëw ci li nga xam ne moom laa yor te ñëpp bokk ko muy commune Touba bi commune bi it bi ñëwee li nga xam ne moom lañ yaakaar ne bi ñu toogee wax programme yi muy logistique bi nga xam ne fonctionnement am ci carburant yaakaar naa ne lu mu bari bari mënul ëpp 5000 litres ma yëkkati 5000 litres jox leen waxtaan ak sama bureau municipal ak conseil yi yëkkati 30 millions de francs CFA do def ko ci participer ko ci waaye 80 personnes yi nga xam ne ñooy personnel service assainissement ma jël 30 personnes yi mettre ko à disposition de Touba ca kanam ngir ñu mën a ànd ak liggéey bi à partir de tey ba ba ñuy wax liggéey bi jeex na ñu nekk ci seen disposition ak. oto yi commune bi nga xam ne éderculaire la ñu ngi fi te fépp fu ñu war a manq wala fu ñu war a liggéey dañoo war a dindi ndox ma mu ànd ak ñoom dindi leen ndox moomu ba faciliter ñiy liggéey ñu mën a liggéey ak leneen loo xam ne nee na këtt ne jonn te commune bi man ko teg ci ak droit ak may ma ko ma def ko ma diisoo ci ak ñi ma ci mën a diisoo topp ànd ko ñoom ba mu jeex